والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه نيوني سانت بروم بي سبحانه وتعالى دي جولي سي محمد صلى الله عليه وسلم دي كو نيانال جامي يالا موكي اي صحابام يي غيناو لولو سي سونو تخاواي بي وي ني دون ام اي تخاو سيتلو سي سوره يوسف عليه السلام tey mu nekk ñaareelu taxawaay bi ñu koy sof ci li nga xam ne moo jiit bokk na ci ndeke nattu daa bokk ci loi naturel yi nga xam ne borom bi subhaanahu wa daf koy doxale ci ay jaamam moo xam dañu baax wala it dañu baaxul mu war jaam yi ñoom ñuy ñaan yàlla waxtu ne yàlla defal leen jàmm ñu xam ne balaa nit dana ko wax balaa bi fekki si ko lu narul am nit ki wax ko rek ngir doy waar bi làmmiñ doy waar loolu fekki si ko yonent yàlla yusuf alayhi salaam fitna bi bi mu doxee digganteem ak jigéen ñooñu lay xew-xew ci mu ngi ne rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi yow yàlla ma dugg prison moom ma gënal ñii li nga xam ne moom lañu may woowe may ragal tàbbi ci kon gam-gam le na ñaar waaye loolu mu tudd noonu borom bi loolu la dogal ci moom moom mooy mu def kaso ay at moo tax ci xadis bu wér benn ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu tuubee ñëw mu fekk saxaaba yi jóge ci guerre màng yi nga xam ne moom la ñu doon séddale butin yi alal ji nga xam ne moom la ñu jële ci yéefar yi ba mu ci yemee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne séddaleen ko waa ji ne lii pour lan la ñu ne ah lii pour alalu jullit ñi la dañu ko jële ci seen noon yow nga yem ci ñu lay sédd mu ne dugguma ci lislaam ngir ñu may sédd alal waaye damaa dugg ci lislaam ngir ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu jàmm fii ma dee dem aljana guerre gi mu ñëk dem fi lañ ko jam mu dé motax tax làmmiñ doy war lool euh lépp lo xamné doomi adama mu ngi koy bayé xel amna ci yo xamné bañ ko wax mom moy li nga xamné mom moy li gën euh prison l'islam bu koy yonal ñetti mbir mo gëna tax nit ki def na lo xamné dañ ko wara protéger ci société bi tax ñu tejj ko ngir lor bi nekk ci nit ñi mu bañ a àgg ci moom mbaa nit ki tàbbi na ci crime boo xam ne bu ñu ko seetaanee ci société bi mën naa wàll ay nit lor bi jóge ci moom dem ci société bi tax ñu war koo tëj caabi seete ko ginnaaw ñetteel bi ngir wéet bi mu fay wét mu amaat njàngat ci boppam mooy kan li mu def lan moo ko jar ba mu def ko ñetti cause bu ne mën naa yóbbu nit prison mais ñetti yëpp kazalika it mën na ko yóbbu ci taxaw seetlu yooyu wootekat bi muy e, e, prédicateur bi war naa nekk ku xër ci jotale diine yàlla subhanahu wa taala woote jëmi ci ci bépp occasion boo xam ne présenté wu na Yusuf alayhi salaam bi ko yàlla nattoo prison mu fekk fa ñaari ndaw li mu njëkk xool moy xam ñooñu lan moy seen bir mu yek ne ñom ñoo bokk benn cellule bu ñu ne mom mu tàmbali leen wo ci yoonu yàlla subhanahu wa taala parce que fekk na leen ci leneen lu bokkul ak la wara ne mu commencé ko ci lan wo leen ci tawhid motax même ci fin sar bi mu ngi déclarer wat kul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin sa yoy dem bay jëli nit ci diine wala doxalin war ko yóbbu ci beneen doxalin na nga lu mu nekk lu leer loo amul lu xam-xam bu ko wax parce que àllaaxira la fay gën a sonal doomi aadama bokk na ci sànq nit ci turu diine moo tax Yuusuf alayhi salaam mu commencé ci ñoom leeral leen tawxid borom bi kenn la moom rek dañu war a jaamu moom moom asamaan moom moom suuf mu tuddal mu tuddal leen ñaari melokaan yoo xam ne lu nit gàtt gàtt gàtt niveau war na ko bàyyee xel muy alwaahidul qahar yàlla moy kenn ki ñu war jaamu parce que mo def lu kenn mënul def mais hit mo dominer lépp bépp force bu ñuy wax force yàlla mu ci tiim force bobu nit ki baye xel bi mu koy baye xel na ko soulager ci lu bare bare mu baña ragalati doomi aadama yi ci seeni menace ak seen pexe mais mu xamne wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthara nas la ya'lamuna kon lolu dina jaadu ci kat bu ne ñettel bi ci taxaw seetlu yooyu mooy jàmm bi daa war a gëm ne li ko yàlla tànnal moo gën li mu tànnal boppam ñaare kii ñaan bëgg-bëggam rek lay ñaan même buy ñaanlu sax soo ko laajee lan nga yaakaar ne mën naa nekk soxla ci yow boo ko waxee ma ñaanal la ci sama borom daanaka bëgg-bëggam rek la lay wax mais na xam ne borom bi ko bindu subhanahu wa taala li mu ko tànnal moo gën li mu tànnal boppam yusuf alayhi nekk na ci prison bi moom ak ñaari ndaw ñooñu le kenn ci ñoom parce que ñoom dañu ñëw ci moom ku ne wax ne daa gént pour Yuusuf firi leen gént boobu kenn ki mu ngi doon wax dëgg ci gént mais keneen ki waxul dëgg ki njëkk wax ba mu waxee la mu wax Yuusuf firil ko gént googule gént googule moom mooy bis dana ñëw nga génn prison mujjee dem ci wetu buur bi di ko nalal li nga koy nalal muy naan app boobu la bi mu jotee moom ba muy dem Yuusuf daf ko yóbbante ne ko boo demee ci buur bi nga xam ne moo ma tëjlu na nga ko fàtteli ne kat Yuusuf ba léegi mu ngi ci prison bi de te soxla na liberté donte pour provisoire la soxle na ko ah ndaw li ba mu demee xëy na génn bi mu génn féex na loolu yóbbee ko ci fàtte soxle jàmbur yi mais ba mu demee wax nag buur bi lu ne mais waxu ko yusuf alayhi salam fa ansaahu shaytanu zikra rabbih fa labisa fi sikni bit asinin cheytaane daf ko fatelo mom ndaw lolu génn noonu liko yusuf yobante ci buur bi waxu ko mujjé bayyi wat yusuf ay at ci kasso bi xolal fofu yusuf alayhi salam bëgg-bëggam mom moy ñu libérer ko mu yobante lolu ci buur bi mais ànd ak loolu borom bi liko gënal moy mu def kasso bi moo tax après moom Yuusuf alayhi salaam moom mu daal di fa des ay at loolaa gën ci moom loolu moom moo gën ci moom ngir lan ñooñu mu nekkal prison bi wala surtout ki nga xam ne moom la fa nekkal te wutul woon dëgg ci géntam moom mu gën ko woo mais jubbanti bu baax a baax kon ñaare yow mii ñaan ñaan moo la war rek Umar ibnul Xattaab radiyallahu anhu day wax ne ñetti mbir a ngi ni danaa ko saxoo bokk na ci mooy danaa ñaan ndax danañ ma nangul wala duñu ma nangul sama yoon newul ci loolu mais naa ñaan rek kon kii ñaan na góorgóorlu ñaan parce que la muy ñaan amaana gënagul ci moom wala gënul ci moom bokk na ci taxaw seetlu yooyu mooy ci xam-xam bokk na ci li sabab Yuusuf alayhi salaam ñu libéré ko parce que ndaw loolu génn noonu bokk na ci la mu nettali buur bi ci ay waxtaan buur bi yàlla nattoo ko mu gént gént boo xam ne jaaxal na ko te gisul ku ko ko mën a expliquer ki libéré wu ci eh, prison bi dafa ne fa ma ne woon cellule boobu am na ku fa ne day firi gént mais lu mu la wax lu ne xam-xam bu leer la buur bi ca la yónnee ne moom nañu ma ko woowal nañu ko libere mu ñëw wuyu si ma Yuusuf dignitéem ak déggum ak mbaaxam mu ne comme tuuma moo ma dugal fii tuuma teggi tuuma ma fi génnee loolu it moom moo jaadu parce que du bëgg lu yomb que gis na occasion boo xam ne war naa mën a boroxlu ci occasion bi moom dayoom ak marte martabam ëpp na loolu le mais daa comme tuuma moom moo ko fi dugal teggi tuuma moom moo ko fiy génnee yusuf alayhi salaam wax leen ay condition bi buur bi mu dajale jigéen ñi nga xam ne wax ja tuuma bi ci ñoom la génnee woon ñoom ñu tontu ne maa alim naa alayhi min suu xamaluñu ko lenn lu ñaaw benn tâche xamaluñu ko yusuf alayhi salaam xabaar boobu àgg ci yusuf yusuf sooga Philippe génn mu war a lijjanti ci li nga lijjanti xam-xam bi nga xam ne moom lañ ko wax noonu le kon ci sababu xam-xam boobu le moom moo koy yëkkati mais moom mu génn ci li nga xam ne moom moo di prison bi ñu libéré ko xam-xam force la ci qissa Moussa alayhi salaam ci yàlla Shuaybu alayhi salaam wala cheikhu Madian ñaari doomam yu jigéen yooyu le ba ñu dajek ci yàlla Moussa mu defal leen la mu leen defal ci teraanga ñu dem wax ko seen baay seen bàyyi mu ngi doon bàyyee xel ñaari critère ñaari critères yooyu moo ñëwaat ci suuratu Yuusuf Yuusuf ba mu génnee ci prison ñu nar ko dénk poste responsabilité ci benn ministère ci ministère yi rawat na économie moom dafa leeral ne inni xafizun alim man capacité yi mu nekk man ñaari sens la xam-xam bi yor naa ko gestion ak li ci aju man xam naa ko mën naa ko parce que gént bi mu firi noonu daa laalaala luy redresser li nga xam ne moom moo di économie Youssouf nee na man xam-xam bi am naa ko ñaareel bi mooy jikko yi mu war a àndal jikko yooyu ñu ci man melokaan googu moo feeñoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam foofu nañ fi taxaw seetlu bu baax a baax tey wàllu ouvrage li gën yàqu tey. dañuy yor benn bi mais beneen bi day manqué walla beneen bi manqué bu ñu ko amee beneen ba ñu waroon njëkk am du fi ne mooy nit ku mën méccam jàngee ko fi mu ko war a jàngee ñu attesté ko ci ay diplôme yuy wane ni kii xam na lii mais alal ju mu jëkk bu ñu lekkoon kooku réew mun fa avancé wala koo xam ne dañu koo yara yara yara yar alal ju xaraam seexlu na ko waaye métti bi mun ko qualifié ci métti bi loo ko dénk ci ay taasu responsabilité mu ngi woo keneen na ko jàppale fii coupé collé bu mu ci mën a doon rek da yàq àddina te ay àq kese moo ciy daje kon jullit bu ne na góor góorgóorlu yow li nga opté ne mooy sa koor bu dee jàng bu dee outil intellectuel yi war ngaa góorgóorlu mu nekk ci yow nga góor góorlu jàng li ngay jàng xam ko xamin bu wér ñaareel bi it nga sàlloo jikko yi nga xam ne métier boobu war na koo am bu dee wuur nga wuur bu dee garde secret nga garde ay secret bu dee déggu nga déggu loolu saa yu amee rek barke am na ci li ngay liggéey benn bu manqué barke du am ci li ngay liggéey mën ngaa liggéey mais doo sore kii lekk te du suur kon loolu il faut ñu bàyyi ko xel ñaari melokaan yooyu borom bi subhanahu wa taala tuddal na ko ki nga xam ne moom moo di yusuf alayhi salaam moo tax même Occident yi sax dañuy wax ne innal maarifata quwa connaissance wala xam li nit ki war a xam teg ko ci preuve yu leer loolu doy na force àddina mën na koo soxla waaye nag nañu ci boole waale jikk yi nga xam ne it xam-xam boobu war na koo am dana gën a baaxal li nga xam ne moom moo di àddina ci taxaw seetlu yooyu mooy war nañoo yar nit ki ci lan nangoo jël ay matuwaayam al axzu bil asbab julit ñi ci jamono yu mujjee nii bokk nañu ci ñi nga xam ne ñoo gën a des ginnaaw ci wàllu wi yonent yàlla yusuf alayhi salaam gént googu mu firi noonu buur bi gént ko borom bi mu ngi koy tënk ci ñaari aaya rek qaala tazrauna sab'a sinina daaba beneen aaya bi suma yati min ba'di dhalika aamun fihi yugaasu naas wa fihi yasirun lépp loo xam ne mën ngaa wax ne luy suqali doomi aadama la diw garanti dundam fii ci wàllu koom-koom la ca jiit mooy liggéey tazrauna liggéey liggéey moom il faut mu am aboubacar siddiq radiallahu anhu danaan wax ne danaa gis julit boo xam ne bu présenté bu présentable la saa yu ma ko laajee lan mooy sa métier su ma waxul métier rek xeeb naa ko ak lu mu mën a xam ci diine xeeb naa ko nit day am métier métier mooy tax doo tàllal sa loxo kenn mais metti moy tax nga nek ko xam ku diñ ngay doon li nga wara wax nga wax ko do ci ragal ku lay sanctionné ci len sa yu deme bi nit ki amul metti rek day nek nit ku doyati kon liggéey mo ci jib ñaarel bi moy a taxtit muy planifier li ngay am qala tazrauna sab'a sinina daaban mais fa ma xasadtum fa daruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma taakuluuna li ngay am na am lo xamne bu mu ñëwaale ci kër gi bu dé bu aggé kër ga dañ koy lek bu mu ñëwaale kër ga xawma ma compte lañ koy wowe wala tontin lañ koy wowe wala lu mu mëna doon nit li ngay am yëpp do ko lekkandoo toog jullit du mel non le na am lo xamne ne koy yahnal parce que dawamul hal min al muhal adina taxawewul ben situation sa yo gemene sa situation tay le gëna bax bu le versement mëna am suñu réew mii buñ ko xoolee deux mille deux mille vingt et un crise économique bi fi jaar ci pandémie bi daanaka ci ngay xam ne jël say matuwaay yi am na solo am na solo ci wàllu yu bari nag wàllu yu baree baree bari parce que ñun ñëpp ñoo ko dundandoo kon l'islam dafay bëgg nit ki li ngay liggéey na am loo xam ne danga nga koy denc ngir àddina bu la songee yow nga mën a am taxawaay bañ a nekk nit koo xam ne ku ñàkk solo ngay doon ci kanamu situation yooyu la moo tax yusuf alayhi salaam waxoon leen ne fa maa xasattum fadaruhu fi sumbulihi loo leen góob ci bele bi ngeen di béy noonu bu leen boo jilëb de na am loo xam ne da ngeen koy bàyyi ci ngub bi bàyyi biñ ko fay bàyyi lekk ko du jafe kenn mënu ko lekkee ci noonu la dañ ko fay bàyyi selek lekk bi lii tax mu àgg ci nit ñi ñu lekk ko mu ngi jafe rek ñu ngi ko fay bàyyi foofu la mais bu demee ba lépp la ñuy dajale teg ko ci kanamu nit ki mu lekkandoo lépp ne alhamdulillah ëllëg dog dog saa yu demee bi am moo xam feebar la wala yeneen gàllankoor yu mën a gaar nit ki économiquement nit kooku la mën naa am jafe-jafe te loolu warul ab julit loolu nañ ci bàyyee xel ñetteel bi ci yooyu mooy adamu tabzir bañ a yàq tey gis nañu ndaw ñu bëgg liggéey am na naam ñoo xam ne fonk nañu denc waaye ñetteel bi mooy cérémonie familiale yi ci la ñuy yaxeeloo liggéey fukki at ñu ne na tàmbale waat wala it ci beneen anam cérémonie religieuse yi ci la ñuy yaxee li ñu am yëpp ñu ne nag nañu tàmbale waat kii du su xaliku mu te diine tegu ko ko aadaa ko ko teg parce que l'islam fonk bi mu fonk doomi aadama borom bi daa xaraamal yàq wala tubazir tabzira inna almubazirina kanu ixwana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura borom bi nee na bu leen pasar pasare alal parce que kat ñiy yàq alal ñii ñoom ñooy àndandoo seytaane yi yàqkat boo gis yàqkat boo gis seenul ci moom ñaar yi bi ci jiit mooy loolu muy yàq noonu am na ñu nekk wetam ñu am àq ci alal joojule te jotu jotuñu ci alal joojule loolu rek mu règle la moom ci àddina ñaareel bi moom mooy ku jege seytaane la nit ki su góorgóorloo ba liggey alal ci jom ak fulla warna gor góorgóorloo alal joju mu xol fan la koy duggal ak fu ko dul duggal li ah, eh, farata la dana ci am yalla na góorgóorlu def alal wa ma tuqaddimu li anfusikum eh, tatajidu inda allahi lii rek la na xol ada bi limu laaj limu laaj na xol limu laaj limu ne ñak mu ñakal ko mais do liggey ay at nar ko sànq foo xam ne saa lu ñu ne tudd na wala ngénte na commencé wax ne dajale waat dara ne wattu si loolu du xel loolu du xel comme nag ay nit a ko fi eh, ay nit ñoom ñoo ko fi ay nit ñoom ñoo ko mën a jëlee olof day wax ne sonna bàyyi sonna bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fi teg ñañu ko teg seen ndodd ku ci sonn ku ne bàyyi rek mënatuma moom moo ciy tegee yonent yàlla Yuusuf bàyyiloo nañu xel loolu le beneen bi ci tegee moom mooy li aju ci bët cet enti yàlla yaquba alayhi salam dom dom yu gor yi ko yàlla mayon dañu nekkon ñu rafet dañu nekkon ñu rafet yusuf alayhi salam génn na prison libéré wuna ken amatul information ci mom ginnaw ga sen baay yaquba alayhi salam mu nekkon falastin mu yebal len Égypte mu ne len bo len bo len di dugg dëkk bobu le la tadkhulu min babin wahidin wa dxulu min abwabin mutafarriqah boo leen di dugg dëkk boobu bu leen duggandoo benn bunt mais na ngeen xool bunt yi fa ne ñii jaare nii ni. jaare ne ñii jaare ne ngir lan al imam ibnu kathir ak yeneen mufassirun yi ko jiit yépp ñu ne lan min xashyatan lil ayni ngir ragal bët parce que bët dëgg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo amoon lu gën gaaw dogalu yàlla bët lay doon ci yeneen xadis mu istaizu billahi min al ayni fa in al ayna xaqun na ngeen muslu ci yàlla bët parce que bët dëgg la ci yeneen xadis moom nee na bët ni muy dugalee nit biir bàmmeel <coughs> wala ni muy dugalee gileem biir cin noonu lay dugalee nit biir bàmmeel kon bët dëgg la bët mooy lan làmmeñ buy wax ci yow wala bët bu lay xool te bàyyi ci xel fekk iññaan moo ko lal soxor te moom moo ko lal loolu def effet ci yow bu dee musluwut sa borom subhanahu wa taala et yenn saa sax mën naa bañ a doon soxorte doonte moo ci gën a bari mais nit ki mën na laa xool yéemu ci yow xool la xoolin woo xam ne day def effet ci yow comme ni euh, comme ni nga xam ne commande télévision commande appareil noonu nga koy euh, tiimale appareil bi nga bës mu def effet ci écran bi mu fay mbaa mu tàkk ah Abdullah ibnu Rabi ata sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñom ji joge nañu makk di dem Medine mo am ci kenn ci sahaba yéen sallallahu alayhi wasallam koy wax sahl ibn hunayf da nekku nit ku rafet macha allah mom mu jekki jekki neena day japp mu déplacer wu ah, abdallah di xol mu dem jege ko famu ne ba mu touré ndox faj ajom mu commencé japp mais mu koy xol jekki jekki bala japp bi sax dafa daldi daanu mom eh, sahl da daanu ah ñu ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent ne moom fa mu doon jàppee kan moo fa nekk Abdullah ne man maa fa nekkoon Abdullah ibnu Rabiata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kaay mu yónnee benn ndab mu jàpp ci ndab li mu jël ndox moom la këpp ko ko mu daal di jóg loolu bët la noonu it lay amee ci làmmeñ romb garab boo xam ne daa meññaa meññaa meññ wala mala bu rafet a rafet a rafet allah nga romb wax ci lu ne. ñu ne kat ngon ci de bir bi mo doon métti ba dee wala garab bi da mujjé wo koŋ lolu beut mën nako mais lan ci mën na lu raw lolu le jurom ñaarel bi moy li résumé qissa yusuf alayhi salam moy innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudhi'u ajra al muhsinin kep ku sallo ragal yàlla ak mu amul len lo xamne mën na jafe ci yow kaw suuf sàlloo ragal borom bi subhanahu wa taala nangoo muñ ci taxaw ay santaanem yi mais muñ ci ay dogalam yi mais muñ walees mooy ko borom bi nee na kii dinaa ko teral fii ci àddina bi àddina yëg ne teral naa kii waaye àllaxira teraanga ba moo ci jiit ñaar rek la ñaar yi moo yóbbaale leneen lu dul ñoom moo tax ci surat ali imran borom bi dajale saxaabaam yi saxaaba yonente bi sallallahu alayhi mu ne balaa in tasbiru wa tattaqu laa yadurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit damaa bari ay noon wax nañu ma ne nit ku bari ay noon laa jëmbatal ragal yàlla ci sa bopp ak mun duñ la mënal dara borom bi dara lu bari bari bari ay noon fexeel ba ragal sa borom subhanahu wa taala mais nangoo muñ seen nattu du ñu mun ci yow dara parce que ki nga xam ne moom nga war a ragal bàyyil xel ne ñooñu seen pexe yëpp moom moo ko ndar képp inna allaha bima yaamaluuna muhit yàlla ndar képp pexe yëpp saa yow wéeroo ci moom nga nangoo wéyal ay santaanem yi mais sori ay terem yi bu yeboo nga xam ne say noon yi seen pexe lu ñu bari bari bari bari pexe yi day romb rek mais du la gàllankoor abadan yonent yàlla yuusuf magam yu mu bokkal benn baay téye nañu ko yóbbu ko àll ba sànni ko ci teen lu ñu wax ab til ko lekk seen bàyyi ne fa sabrun jamil muñ rek moo ma war amatuma pexe parce que yuusuf daa sor woon xolam yenn mu fassiru ni ñu ne toogaat na lu toll ci ñaar fukki at ak ñaar tegatul yuusuf bët moom mu dem ba yëg ne yuusuf pourtant mu ngi dund de deewul mu waxaat it fa sabrun jamil عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو الحكيم العليم امانه يالا دلوما سما دوم يوي لي موني رك موما وار تي فين سار بي بروم بي انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المؤمنين ولا المحسنين يالا يالا ماي خلو موني بوبو يالا دغلو ني تيرم بي يالا جاباندال ني جيفيكو اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم خذ بايدنا الى صراطك المستقيم وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم تولى أمورنا ويسر لنا الهدى يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله